du nom de Abdoukarim Gueye xaq waaw Mom mu daw génn indexé le nouveau régime dal si ko Ousmane Sonko dal ko Diomaye ni kat ñi nga xamantene mom moy wa passef Pastef nañu summi seen euh, yére euh, Pastef yi te xam actuellement il est temps <coughs> pour la pour pour ñu dem liggéey parce que am na ñoo xamante ñi ngi ci ñi ngi ci bir prison bi te war nañu génn gaay passef Pastef yi ki dal si kaw ki nga xam ne moom mooy Gueye Abdou Karim daa wax deug gis nga ki mo moo ak ñom ba muy metti dugg ci prison def yëpp dëgg gis nga kuy gouverner réew ne kenn du la wax dëgg kooku naru def lu jub waa Pastef fii bu ñu fontoo nit ñi dañu yor parti politique nekk ay militants ñu jël réew mi jox leen ko jox ko coalition nit ñi am nañ bu ñu am nañ droit bu ñu gisee loo xam ne fa mu jëm baaxul ñu alerter Abdou Karim baax na ci parce que parce que man coup franc laa ko jàppee Abdou Karim Gueye ku franc laa ko jàppe nit coup franc la parce que coup franc rek mooy def bu gisee loo xam ne lii du yoon mu wax ñii daal ci kawam yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp amuñu alibi boo xam ne mënuñu la wax li tax ñu ci kawam mooy dañoo farag waa ji waa ji du messi nit la day juum ñi ñu fal nii dañuy juum ay nit lañ yuy juum duñu messi ñu leen mën a fi nekk yàllaa def ñu ëpp xëy na ëpp làmmiñ ëpp théoriser parce que théorie lañ doon def nit ñi am yaakaar si ñoom ba jox leen réew mi mais du ñoom ñoo gën ci réew mi du ñoom ñoo ëpp xam-xam ci réew mi du ñoom ñoo dàq liggéey ci réew mi du ñoom ñu ëpp alal ci réew mi du ñoo gën juddu ñu fi nekk ci réew mi loolu il faut ñu xam ko moom li mu def sax dafa baax li mu def dafa waroon permettre ñoom ñu woo ko waxtaan ak moom jàng ci li muy gis nga ki lay critiquer même ba si saaga bi jàngal ci li lay wax pour ëllëg nga mën si jariñu li mu def nii c'est très bien parce que alerte la def parce que ñoxor njaay àgguñu il faut ñoom ñu gëm ni du Pastef moom moom réew mi. il faut ñu gëm ni ñom ñom moom gouvernement bi. il faut ñu gëm ni il faut ñu non dañu wara gëm gis nga yoy bu amé ci Sénégal rek. Ah. toujours moy indi régime bo xamné après dañuy delluwaat ci upp bu metti moy régime de tonton Macdo mako moy ku wax rek dañu wara duma fofu la jëm il faut que ñu gëm ni président de la république bi bañ ko falé 54 yam andal rek du ñom rek lay gouverner.

Abdou Karim li mu lay def nii da leen di dimbali day dimbali soo dimbolé, dimbali day dimbali le président Diomaye day dimbali le premier ministre Ousmane euh, euh, Sonko di dimbali les les autorités judiciaires ki jox justice bi muy muy muy muy muy kii basi euh, mu tati mais ki ñu ko jox da koy dimbali pas général un un magistrat la ñu ko jox mais ancien procureur de la république moo nekk ministre de la justice parce que mon question de justice il lay wax parce que dund na mom moom moom lañ njëkk ko ñom Sonko. mom mm-hmm. tejj nañ ko ñaata yoon. mom mm-hmm. xamna amna ci expérience te ñoom ñoo àndoon parce que dan tok di waxtan pro lan lan proposé di wax né ñun buñu ñu kat li doot fi amaat mais lool lay wax parce que mëno jëk jékki et tamit amna na benn am na benn ànd dañ ko wara dañ ko gis nga une fois arrivé à l'exercice du pouvoir bokkatul exercice exercice politique nit ñi koy attaquer ñom ñëpp diko attaquer Hmm. ñen ñu ci bari ñi ngi koy attaqué xamuñ sax lu ngi koy attaqué parce que dañoo far sénégalais nak day far bu faree yow pour yow Messi nga ba boo ko rayee mu génn ci mbéd mi di rëcc té yoy mo wara jéx moy nit bu boy and ak mom da ngay and ak mom xel mais do and ak mom xol xel ngay and ak nit mais bo and ak mom xol rek ay dérive hmm. bu suba bu Abdou Karim amé dëgg na fuñ jëm fi lay ñuy pourtant waxon nako mais alerte dafa war a am ci régime hmm. régime bu toogee dafa wara des lanceurs comme ñom wax ay lanceurs d'alerte lanceurs d'alerte ñom si la euh, ah mais dégg ñu ni ñoom dañuy te ñi lanceur lanceur comme yow comme comme non xam c'est des erreurs xam man dama ne ah. si Sénégal am na ah. lanceurs ak gis nga gis nga dafa am justice kenn du si anticiper le président de la république si déclaration à la nation du 3. dafa am fenn foo xam ne dafa outrepassé dafa jàll. bu mu demee ba naan euh, prête non yi di si wax. man dama ne loolu du rôle président président bi justice bi la war a bàyyi mu def liggéeyam parce que bu fekkee dañoo bëgg ñoom ñoo fi doon wax séparation des pouvoirs. ñoom ñam nañ kaso. loolu dal na leen am na yoo xam ne boo si duggee rek da ngay dugal si réew mi si pëcc xoo boo comprendre. Mm justice bi bo len bàyyee amna fi ay cours yu fi nek am ofnak amna mhm. am cour des comptes mhm. IGE mi ngi présidence mhm. ak yenen seen ak yoy ñi ngi fi bàyyi leen ñu def sen rôle sen liguey bul anticiper sen liguey yow président bi après am rapport yo xamni si yow lu jëm ci rapport yooyu bu ñëwé nak jaru nga koy bloqué jox ko procureur bi rek bàyyi leen ñom ñu liguey bo len bàyyee ñom may leen sen temps ak sen xel li am rek si élection yi war na yéné les magistrats waxuma ñëpp nak certains magistrats sont libres conseil constitutionnel ni mu débouté Macky Sall si bi mu abrogé décret mu ñëwaat defaat dialogue am ñu ñëwaat gisé débouté waat ko. Mhm. mo lay wan ni que ils sont libres. amuñu crise institutionnelle il faut qu'on arrête de le dire fi amu benn crise institutionnelle lan mo am mooy mise bi exécutif bi bëgg def té ñi bu fekkee sen wax commencé nañ ko wax biñ commencé ay lanceur d'alerte ak ak ban réew ngay tok les autorités yo xamné ne étatique nekk ca kaw di tudd ay lanceur d'alerte loolu du sen rôle ñom ñom seen rôle président bi dañ ko war a dimbali ne ko kat y a des problèmes économiques dañoo bëgg indi rupture war woon def comme la Macky Sall jot toog rek dem gisi waa Benno Bokk Yaakaar fii daa toog rek dem gisi waa Diomaye président daa waroon rencontrer le secteur privé et secteur secteur privé bi ak ñu yor économie Sénégal loolu doon premier rôle am nan la def ba rencontrer leen vie est ah, chère pour discuter ñoom kon li mu def kon def mu rencontré waa coalition Diomaye bi. non dafa am dafa ñun ñoo wax gars yëpp toogoon fii. ne président bi daa war a bàyyi coalition yi. bu toogee rek coalition bi lay njëkk gis wax yooyu dafa waroon remplacer loolu. coalition bi kay ngalla moom am na sens sax moom bokkut Pastef euh, Ousmane Sonko mën na ko fa remplacer ndax mooy diriger Pastef teewul dina mën mook ay alliés dinañ am place de convergence jotagul parce que buñ ba mu fa demee tamit après lu si suivre mooy problème de poste waxtaanee poste si suuf parce que gars yi duñ ànd ak yow te duñ ñam de. amul benn doomu aadama buy ànd ak nit. mais Mimi moom dana ko jël mooy noonu de. mu jël il paraît que dana ko kii ba nga koy consommé moom. ah non man xam kaay ma wax la benn affaire nag. waaw euh, non moo moom la mais dama ne la am na lu mu bëgg. tata Mimi. am na lu mu bëgg ku bëggul dara nan lay du bokkee si xeex. Mimi see musique si àdduna ku bëggul dara dina ànd si xeex. Ah, waaw su bëggee waaw da ngeen di gagné ba pare moom après moom mu dellu dem tëdd këram di nelaw gars yi def la gars yi gars yi. non mais moom nga gis nga kaay ban na moo la benn affaire. waaw gënuñoo bëgg kenn changement. changé Sénégal bi ciy wax ay jëf la am na ñoo xam ne politique gu ñu nii ñuy change Sénégal bok ñi man ñen laa gëm ni ñoo bëgg changé Sénégal mooy secteur bi ñoom ñoom Serigne Mboup ñoom Serigne Mboup yi dama leen gëm si ñuy changé Sénégal ñoom Youssou Ndour si ñuy changé Sénégal parce que teg nañ ci dara ñooñu ñi changé ñi liggéeyloo nit ñi ak surtout ñoom Ablaye Sylla ak yooyu mais gëw ay nit yoo xam ne lépp lu ñu am si administration bi lañ ko amee taxaw nañu ay changement loolu ay wax la changement warul doon chose politique dafa war a doon un grand ensemble des gens yoo xam ne defal nañ leen comme li ñuy wax defal nañ leen ay defal nañ leen conditions yi ba mën a ñëw participer duñ soxla el politique bi mais nga dugg ci politique takk ci rib am ci ay ndomboy tànk di dundee politique taxaw naa noonu dañoo bëgg a changer. te nekk fi combien de fois ministre hmm. kër yi am fi bénéficié au Sénégal jox lay salaire am ba tàyyi non bu ñu bu ñu ay changement changement moom bu ñuy sonal